Palma ak, banana ak Yal nañu yàlla boole baal ndax jàmm na dàkk lu yàlla sàkk yàlla nañ ko buur bi yàlla defal am naa du ñàkk mës naa la tooñ waaye na nga ma ko jéggal ndax jàmm dàkk lu yàlla sàkk lu yàlla sàkk yàlla nag buur bi yàlla def kuy sawaay sawaay kan kan mooy sawaay néeg bi daa mel tëjee sax jàll booy sawaay daa gën de sawaay daa gën yow soxna si xamoo nuyoo ah baax na baax na xamoo leen koor xamoo leen dara Sana aking palana aking Nanuya la pole bab Nakjaman ake Luya la sakin Yala nagkapurpi yala defend Palma ake palana na nekk buur bi yàlla defal. incha allah comme ni ma la waxee rek. nga xamee ko noonu daal. incha bu ay heure boo ko bëggee rek yow la def. li may damaa kontaan. heure boo ko bëggee rek yow la def. maanaam am na benn kilifa mag bu dox naan jamono ji jamono ndaw ñi la boo gisee lu nga xamante ne si lu lëm la sa bopp rek. man man am nga droit ñëw ci oustaz leerlu waaw waaw booy asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw kon ay julit lan te julit li mu war a dafa war a laaba laawante biir ma lay dimbale rek dimbale sam bopp ab lii soxla la ndox la def douche baa ji dee dabal sangu set kon moom kontaan wax na la mum kontan na te yow nga wax ni yow kontan nga te xam naa ni kontan nga kon tooñ ngeen yàlla sëwru ramadan jappal li pour lan boo sangoo set pare pour lan sang ah pour lan sangoo set pour lan li ngeen def ci bir ah boy nekkal peegar kon kon da nga jappal ne dañ doon def safan ci bir ah da nga japp sa xel mu gatt ne ñu dañ doon def safan manam ci biir japp mo sa xel réserviseur moko won no da nga ñaaw ndjor parce que li nga li nga def dara li ci déedéet ñaaw réserviseur ma xanaa yow nekk réserviseur moo won nga dama ñaaw ndjor man jomm naa di tooñ rawati nak bëccëgu weeru koor te li nga def ni affiche bi doomu aadama la laa ko mën a jàpp ñaaw njort la jullit bi ñaaw njort magum jëmm nga ndax ay béjjaaw am na yoo xamante ne si ñu waru na suñu borom am na lu mu wax ci alxuraan mu ne yaa ayyuha alladina amanu ittani ijtanibu kasiran mina zanni inna ba'da zanni ismun mina zanni waa may ma ma ñëw kasiroo waaw àggali aay bi ko waaw may ma ma ñëw waaw mu ne moytu leen li nga xamante ne si moom la ñu tuddee ñaaw njort mm-hmm. ndax am na yenn ci ñaaw njort yoo xamante si ni bakkaar mm-hmm. la lay jural mm-hmm. mu teg ci ne bu leen di gëstoon seen biir ay jullit duñu gëstoonte seen mu teg ci ne ay jullit duñu gëstoonte seen biir wala tëjël sa suuf am na yu nga xamante ne si ni nag la parce que li ngay def ne ci ak sa doomu aadama bo bokk ñaar ñu paa يو هو مصور من ورا الكدي هو مجبان يلا هو با دي هو خدنا با با يو اه بسم الله لو اسال ني وا دغ من دم تو ني تو سامبل ما كو جان بسم الله كاي دي دك مسو دون جانgal jangal ma sama diine jangal ma koor ni wara ko waxtoo jangal ma sangu set bi ngay wax léegi nee na la nag wax na la solo jàpp naa jàpp naa jàpp naa kii naa ba. Gaspard dafa am ndox. waaw. te sangu ji. Hmm. léegi yow nag dañuy jox fi ma sangu. nee na la ñaaw njortu baaxul parce que boo ñaawee njortu yàlla mën na la ba sangu farata. yéen yéen a ngi dem kañ ngeen di ñaan sangu ji xel mooy waxante ji. waaye nag diggante dafa ñaaw dafa dafa ñaaw boo leen jàng ba ngeen toog xale yi baal ma ak baal naa la ak yal na ñu yàlla boole baal ndax jàmm dàkk lu yàlla sàkk yàlla nañ ko buur bi yàlla defal I'm not Amadunya ke mesnara tonwa Nanggama ko jegel Yena say say taniman mamatef